jërëjëf euh, mbokk yi ñoo ko seetaanoo jërëjëf ak page boobu nga xamante ne que mooy luttons contre l'indiscipline fan yële passé autoroute à péage def na fi ay jëye ku nekk ci dëkk bi jóg wax kilifa yi wax nañu borom xel yi wax nañu journaliste yi wax nañu waaye autoroute à péage bi dañ ko war a éclairer dañ ko war a def nangam ak nangam mais luñ ci mën a def te ñun sénégalais amuñu discipline bi war. rek ñu ngi tooñ suñu bopp xoolal apprenti car yi ni ñuy def ci point de paiement bi waaye ñañ fa fekk xanaa point de paiement yi amul genre gendarmerie gendarmerie fa lañ daan monter chaque jour ngay langaa mucc ci ay outils yoo xamante ne que ci autoroute à bi la ñu ko def mbokk yi may laaj est-ce que ñun sénégalais lan moo ñu war mën a yóbbu ba ci niveau d'indiscipline bi ci réew mi ak bu ñu ko bëggee réparer ci une fois la ñu war a jaar.